boobu laa ilaaha illallah ana course boobu mooy lan course de vieillard laa ilaaha illallah fii ci Dakar course de vieillard mi ngi noonu laa ilaaha illallah dem na gauche dem na droite ndeysaan yëkkati na tànk yi tubaab fakala xaale mi daal mi ngi jël laa ilaaha illallah ay suluxu xool ma étirement bi rek suluxu jël na mbagg bi wàcc na ko ba ci loxo tànk yi laa ilaaha illallah suluxu mii mi ngi ci état yëkkati na super yi oh ndeysaan kuus mi ngi noonu di présenté def na Gris Bordeaux na tànkee ca kaw kuus ca kaw i Gris Bordeaux waaye xaalis dugg ni bi na de salaamaaleykum mbokk yi ginnaaw ñoo ñu ngi noonu nag ñëw tàmbali leen course baa ngi noonu di commencé gis nga gars yi sax laay laay laa course bi na ñu ngi tàmbali laay laay laa kuusa moo bu ci kanam laa ilaaha illallaah suluxu a suluxu romb na ko suluxu romb na ko mbokk yi suluxoo ngay dem de suluxoo ngay daw laa ilaaha illallaah ku suñu ko féete ginnaaw ndeysaan ñu ngi bàyyi xaalis ci ginnaaw ak xam xamante ne mooy biiru ñebe diggante kuus ak suluxu laa ilaaha illallaah kuus romb na ay waay kuus romb na xoolama xaali moom ak biiru ñebe yi de daanaka la ñuy xëccoo ñoom. et biiru pétrole dawal waay. laa ilaaha illallaah kuus a ngoogu ci kanam cay kuus ay waay ndaa tata am na solo mën a daw kuusa ngoogu cam yekk si kin maa ko tuddee woon kuus kuusa nga ca kanam kuusa nga ca kanam xaale ngay ñëw moom it xaale ngay ñëw kuusa nga ca kanam suluxu ah suluxu ngi noonu suluxu ngi noonu ci ginnaaw kuus la ilaha laa suluxu mi ngi accéléré suluxu mi ngi accéléré suluxu mi ngi accéléré la ilaha illallah kuus ak suluxu daanaka waay ku ci sa morom ndeysaan ah suluxu romb na suluxu romb na ay waay solo nga dem supporter yaa ngi yuuxu ay waay yaa ngi yëkkati seen loxo ku nekk ngay supporter sa course ndeysaan la ilaha illallah xaale ngay daw ay waay la ilaha illallah kuus kuusa ngay ñëw a ngay ñëw kuus kuus mayul dara suluxu suluxu mayul dara kuus wala ñoom ñaari duñu jëndee bu kenn pàdd moromam nañ ko daw rek fair play la paix Sénégal jàmm rek a fi neex ndeysaan kuus baa ngoog ndeysaan première ligne trente course dina ko jël la ilaha illallah dina ko jël sul xoog ci ginnaam la yegg la yegg cappandaw la ilaha illallah oh ay execo li ma fi gis nag execo la de nañ déglu arbitre arbitre baa ngi noonu soufflé na ndeysaan ah arbitre nee na ñu dem VAR arbitre nee lii moom mosuma koo gis ak lii borom faar ndeysaan borom faar boobu xoolal ma seen costume rek ah waaye lii tamit lii lii ma rek waaye lii ay ah, waaw waaye lii exoco la waaye ñaari seen loxo seen bopp lépp a tolloo waaye lii exoco la exoco la waaye arbitre boobu awoo oh, waay li ngeen di def vaar xoolal ma lii même PDG yi teg ñaari tànk yaa ngi ñoo tolloo waaye ñoo génnandoo seen bopp yeeg loxo yëpp exoco la Exopole tusiku hopus supporter yaa ngi waaye fan nag dañu déglu VAR dama déglu waa VAR waa VAR wax na ñoom arbitre bi ba pare léegi nag arbitre dañuy déglu arbitre nag loo fi joxe lu dul match nul yàq na course bi arbitre xoolal li ngay de loo fi joxe lu dul match nul yàq daay noonu tey sa ña mu yow laay arbitre yëkkati na la ko course nee na course ko tey waaye man lii c'est pas vrai d'accord mais lu muy def nii waa li It's a cooler way. <laughs>